cette question de la hausse du prix de l'électricité. Mhm. Et euh, l'objectif aujourd'hui, c'était pas d'être en masse, comme vous voyez. On n'avait pas de voiture sonorisée, on n'a rien du tout. Euh, on s'est scindé en groupe de 2-3, pour ne pas créer de troubles à l'ordre public. Donc l'objectif aujourd'hui était des groupes de 2, 3, ne pas créer d'attroupement et pouvoir parler tranquillement aux Sénégalais dans les marchés de vous voyez, hein, Malal Tala et beaucoup de nos camarades qui marchaient, ils sont à trois. Trois personnes ne peuvent pas créer le trouble à l'ordre public. Mais nous sommes dans le pays où nous sommes et vous parlez sur l'état d'esprit de ce qui nous sur euh, cette lutte-là qui est une lutte du peuple euh, n'accepte pas euh, que cette cause du, prix de l'électricité vienne le tuer davantage parce que le jour de la vie est là assez cher. Donc c'est ça, nos camarades ont été arrêtés le travail continue. Le travail continue et c'est un travail de sensibilisation, Le porte à porte. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de créer de l'attroupement parce qu'on est tout par groupe de 2-3. Donc, euh, malgré cela, les camarades ont été interpellés euh, parce qu'apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on s'adresse Mais est-ce que la police ne pas de Je ne sais pas, il faut demander à la police. Mais nous, pour être respectueux des lois et règlements, nous n'avons pas voulu être en nombre. On a dit à tout le monde qu'il faut être par deux, trois pour ne pas créer de troubles à l'ordre public. Mais malgré cela, on voit qu'on a été interpellé alors qu'on ne fait pas de troubles à l'ordre parce que deux, trois personnes ne peuvent pas créer de l'ordre Mais cela ne va pas avoir problème. la ko seen euh, ñenn seen i camarades ñu ci gën a seetlu di Fou Malade euh, gis mën nga dellu see déjà ci euh, stratégie bi nga xam ne moom ngeen déroulé tey. non tey jii nii ginnaaw rassemblement yi ñu amal ak yeneen activités yu fasantikoo yu collectif citoyen ñoo lànk amal mm-hmm. dañu jàpp ni am na solo aussi ñu dem ci marché yi dem un peu partout mm-hmm. mën a waxtaan ak sénégalais yi saa fonte jox leen information yu war te ci biir loolu tey. Euh, objectif boo xoolee amul camion sonorisé amul auto amul amul mégaphone amul dara dañ ne bëgguñu créé groupe à l'autre dañuy don ay groupe de deux trois maximum ñu nekk ci marché yi nekk ci artères yi pour waxtaan ak sénégalais yi jox leen ay flyers loolu nag yoon may nañu ko comme du ñu attroupement mun nañu citoyen yi ñu doon mm-hmm. doxantu def dox mbokk ak sénégalais mm-hmm. donc ci biir lolu la malal ñi mu àndaloon fu malade ils étaient trois donc ñu interpellé te apparemment am na yeneen frères yi nga xamante ni interpellé leen ñu leen alors que defuñu benn trouble à l'ordre public parce qu'ils sont par deux trois maximum mhm. donc loolu nag ñun ñu ngi wéyal liggéey bi gis nga am na ñu nekk waxtaan ak Sénégal yi te am na ñi nga xamante ni ñu ñuy jiitu bëggu ñu ñu waxtaan ak Sénégal gën leen jox jumtuwaay yiwaat pour que bañ bi ñu bañ yokkute bi ñu gën cee sax ndax police gis boobu la ci am ay fondamental la police mais ñun li ñu ëppal

ay sénégalais la ñu Sénégal lañ dëkk am nañ droit dox mbokk am nañ droit euh, waxtaan yi am nañ droit dem wax transporteur yi donc commission am na droit dem wax jërëjëf voilà donc euh, nous ne reculons pas voilà donc euh, il y a trois là-bas on crée un autre trois ñëw ci manifestation yi moom lay leer voilà déjà boo xoolee donc moo taxoon ñu nañ ñëw waxtaan ak yéen voilà ndax askan wi moo ñu tax jóg pour xeex yokkute wi gouvernement mu dellu ci jëm donc ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ngi daal moom moo nanguwul